mbilim lacc ñu ne nan marché nan marché moo tax léegi bu ngeen wootee kenn du ñëw parce que da ngeen a soof nit ñi ba pare dañ leen a far ragal sax far ils ont peur de vous parce que li ngeen indi lu bees la te lu bon la violence yépp ci yéen lay jóge mais daf ma jàpp parce que musuma am xel ñaar ña si kenn bokkum amee na ni fit tey laay soo a xam ne kenn bokkum fu ngeen ko natt ci fit weesu na ko lu mu sëñ te def ci àdduna amut ci wàllu politique tey laa koy. te léppi kàcc la. amoon naa ci sikki sàkk amoon naa ci sikk sàkk ci benn jamono boo xam ne dafa am lu xew ci kër Thierno Bocoum bi mu amee ñu bari woo ko di ko baalu àq ak di ko jaal ci doomam bu ndaw buñ ne dafa rëcc dugg ci biir foosu kër Thierno Bocoum dee xaw ma ndax yéen a ngi fàttaliku doomam bu dee woon ñu ne dafa dugg ci foos ñu bari di ko jaale kërëb kërëb di wax. te léppi kàcc la su ma cee wax waaye doomam jooj ñu dafa dugg ci foos bi dee ñu jaale ko suul ku nekk baa ji kër kër la ca nekk lépp waxuñu ko mosuma cee wax nag. waaye tey fa du ma taxaw di wax ko rek. loolu ba mu ba léegi dama amoon xel mu tey ci moom mosuma wax ci kenn bu dañoo am nu ñuy doxalee donc doomam jooju dee dugg ci foos bi duma ci sori ndax xale bi dem na. fàtte nañ ko yàlla ngeen la ma ca xam du ma ko wax ndax réew mi moom boo xasee ba dee daanaka wax ci yow day jafe ndax yéen ñi may déglu bëgg ñun Sénégalais yi bëgguñu koy wax ci ku dee waaye bari na fi ñu fi dee ñoo xam ne tey ji yàlla reyu leen ay nit ñoo leen rey. ma wax leen te lépp kàcc la tey ji bu ñu amoon ay cabinet privé de médecine légale médecin légiste yu aay yu indépendant ñu def ay autopsie ci ñu dee. réew mi tàkk na bu yàgg parce que bari na fi ñu ñu suul ñoo xam ne ñii biñ leen di suul deewuñu ñii dañ leen a rey. ay homicide moo am moo am moo xam ci xale moo xam ci ndaw la tudduma turu kenn ma jàll ci lool ndax réew mi dafa am ay féticheurs ñoo yor réew mi yàgg naa leen ko wax ñi yor réew mi yoruñu ko ci xam-xam. te lépp di kàcc la yoruñu ci bëgg ci réew mi ko ci technique yoruñu ko ci science yoruñu ko ci baatin ci fétiche lañ ko yoree te fétiche yooyu dafa am lu mu leen di laaj léeg-léeg ñuy def ay sacrifice te sacrifice bi bi ci gën a. te lépp di kàcc la mooy bi la jege. parce que ki gëm Sénégal dëgg dëgg dëgg du provoquer luy taal Sénégal wala luy yàq Sénégal asalaamaaleykum dama taxaw léegi di dawal sama oto jóge Saly di dem Bambey euh, sama benn xarit yónnee ma benn vidéo direct benn waaye bu tudd Akhenaton Aton xaw ma di wax naan moment bi muy wax nii mooy moment bi may wax ak yéen nii nee na ci jamono jii maa ngi biir bureau Elimane Lam di jël xaalis billahi lazi na yàlla ma yàlla àtteeg ñi nga xam ni heure bu ñu xëyee ñu ngi fen di wax loo xam ne du dëkk yàq sama der di inventé loo xam ni teguwul fenn di ma ko wax te lenn lañ ci jublu mooy yàq ak wax lu bon te teguñu ko fenn fenn fenn fenn fu dul ay fen wax ba wax ba yey te léppi kàcc la loolu kay ab jullit mënu ko encore une autre information officielle buñ ma jox ci suuf Adji Sarr ndekete résidence Mamoun lañu ko làq fa la nekk elle occupe donc benn suite dans la résidence Mamoun wala boog benn chambre bu luxueuse climatisée lépp ñu koy sécuriser avec le ministère de l'intérieur il paraît que dafa commencé dof mi ngi yuuxu di def ba ñu dugaloo ko benn psychologue bu ñëw di wax ak moom defal nañ ko passeport am il paraît tey lañ ko defaral passeport am ci police su jëppal di incha allah la nar génn Sénégal Adji Sarr ndax yëf yi ëpp na ko doole ma ngay yuuxu di dal. ba ñu indil ko docteur psychologue bu ko xool defal nañ ko passeport am lañ ko waxoon yëpp gisu ko yëf yi ëpp na ko doole ma ngay cëpp ma ngay tëb a dal ci résidence on va donc l'information a été donnée à nos le terrain pour donc essayer de régler la question à vous l'antenne merci. te ñoom fen daanaka mooy c'est l'art de dëgg-dëgg ku koy topp ak toppandoo sax wéro man gone yi laa yërëm gone yi juddu après am na lu leen da xaw ma lu ñu leen suuy la xaw ma lu ñu naan la xaw ma lu mu doon mais am na lu leen dugg. salaamaaleykum mbokki Sénégal mbokki diaspora bi ñu ngi leen di nuyu leen ziar yéen ñëpp leen jox seen wàccuwaay audio bii may bëgg a def maa ngi sàkku ci képp ku ko dégg nga wasaare ko ba adduna bi yëpp jot ci audio bi may waaj a maa ngi sàkku ci képp ku ko jot nga tasaare ko ba adduna bi yëpp jot ci. nu mu gën a gaawee c'est extrêmement urgent yàkkamte yàkkamte la mooy la te léppi kàcc la. président Ousmane Sonko Macky sàll daf ko bëgg a assassiné. te léppi kàcc la. démb bi mu jógee di wuy ji ñu kar ko ne ko doo jaar fii fii ngay jaar gis ngeen ni préfet bi sonnee ci bëgg koo jaarale fi mu ko bëggoon a jaarale. te léppi kàcc la. président Ousmane Sonko lànk na fi lay jaar. fa ñu ko bëggoon a jaarale bu fa jaaroon bu demee ba ci corniche bi nervi yi ñu tegoon ci corniche bi ñooy créer problème dal ci oto bi dóor ko jafe-jafe yi am mu ubbi oto bi génn di wax ak ñoom pour ñu jéem a arranger foofu mu taxaw di wax wala mu ubbi buntam am na ñaari sniper ay tireur d'élite yu di France nekk ci biir Sénégal pointé ci ab immeuble. te léppi kàcc la. yor ay armes automatiques yoo xam ne dóor bal usman Sonko mu dee moom lañ namoon démb. te léppi kacc la. heureusement ba ci biir gendarmerie bi am na ay patriotes yu am information bi ñu def le tour ba dévier Ousmane Sonko yóbbu ko gendarmerie démb section de recherche yóbbu. te léppi kàcc la. bi ñu ko yóbbu sax loolu daf ko sauver faf finalement. mais nag weesoogul ndax dañ ko nar a jàpp encore suba 6 heures du matin 6 heures du matin lañ ko nar a yëkkati yóbbu ko tribunal te diggante 6 heures du matin ak muy àgg tribunal ragal naa président Ousmane Sonko du àgg tribunal dinañ ko assassiné rey ko te Macky Sall moo nekk ci ginnaaw ak ñaari français yoo xam ne ñi ngi Dakar actuellement. te léppi kàcc la. may wax nag lii may wax ni ngeen ko jël au sérieux ngeen partagé ko rapidement bu guddi gi yëpp na ko ñëpp jot. su ngeen yéexee bu subaa bu ñu xëyee président Ousmane ko ci morgue bi lañ koy fekk. te léppi kàcc la man gone yi laa yërëm gone yii juddu après 2000 am na lu leen da xaw ma lu ñu leen suy la xaw ma lu ñu naan la xaw ma lu mu doon mais am na lu leen dugg. ñu jël bande yooyu ak ni ñu ko futtee ak film yi ñu def yépp boole ko ñu ngi koy monter jamono bi may wax ak yéen ñi ngi monter film bi pour génn ko yàq deram te léppi kàcc la. moo tax juge d'instruction bi waroon ko déglu sànq ci tribunal bi dàq mbir mi ba altine ndax montage bi rek ni ñu ko war a defaree moo tax fi mu toll nii ñu dàqaat mbir mi ba altine. te léppi kàcc la. loolu nag mbokk yi maa ngi leen yëgal ne maa ngi leen yëgal ne luy jot jot na gannaaw de parce que bés bu nekk. ñii ñu seqal mbir mi ñuy ñoqale si ñoqale goo xam ne ngir bëgg a faagaabal doomu jàmbur bëgg ko teg ci moom ay tuuma bëgg ko di ko taqal ak yàq deram ci kii muy Ousmane Sonko dem nañ ba drogué ko futti yéreem yi def ko taatu neen mu taqali ko ak sagoon ñu filmer ko di ko wax loo ay wax yu kenn xamul ngir mu nangu ne moom moo def li ci Adji Sarr te yëgul tinul bi mu koy lool lépp bi ñu ko koy wax loo àndul ak sagoon. te lépp kàcc la. moo tax ñu. enlevé ko maanaam dañ ko këf siif ko Ousmane Sonko yóbbu ko kenn xamul fu mu nekk loolu lépp ci guddi gi lañ ko def kii préparé loolu nag nga xam ne mën nañ jox opération monté bi ak vidéo yi ñu war a génne mooy Aliou Sall bi nga xam ne journaliste la woon nekk ci fondation madame Faye Sall Aliou Sall moom laay joxe turam les patriotes yéen ñëpp Aliou Sall moom lañ jox dossier boobu pour mu def montage yi pour ñu génne ko pour yàq dara Ousmane Sonko lii nag. moo tax léegi bu ngeen wootee kenn bu ñëw. parce que da ngeen a soof nit ñi ba pare dañ leen a far ragal sax far ils ont peur de vous parce que li ngeen indi lu bees la te lu bon la. Macky Sall moo ko moo ko deflu di wax ko kii nga xam ne mooy euh, Antoine Diome ministre de l' intérieur Malick Sall ministre de la justice Samba Sall le doyen des juges ak nag ki nga xam ne mooy procureur de la république di Bassirou Gueye. te léppi kàcc la. ñoom ñoo nekk ci lii pour bëgg a yàq deru Ousmane Sonko gannaaw ñu ko bëggee rey mu mooy léegi dañ koo drogué. ci ay pompe yuñ pompe ci néeg bi mu xëm. te lépp kàcc la. nelaw ñu futti ko mu yeewu di tëñëx tëñëx ñu di ko wax loo wax joo xam ne li muy wax xamuñ ko dara ñu enregistré ko di ko laaj muy wax ñu daañu ko monté changé ko def lépp loo xam ne bu subaa bu ñu ko génnee ñu ne Ousmane Sonko kat kon moo sàkku Aliou Sall ndax wax na ko bandi baa ngi nii. te lépp kàcc la. Aliou Sall bi nekk fondation Marième Faye Sall te nekkoon journaliste moom lañ jox dossier boobu pour montage yeeg affaire de communication bi ak presse mbokk yi dama bëgg léegi ngeen ko ba ñëpp ñëpp ñëpp yëg ko parce que ñoom lépp lu ñu def suba ba ngoon daañu ko xam te bu ñu ko xamee daañu ko génne balaa bande bee génn dama bëgg sama wax ji àgg ci Sénégal gépp diaspora ne ko ñëpp yëg œil pour œil dent pour dent bu ngeen bàyyiwul duñu bàyyi seen mbokk ak doon moo doon dig te léppi kàcc la parce que ki gëm Sénégal dëgg dëgg dëgg du provoqué luy taal Sénégal wala luy yàq Sénégal ñaari mbilim lacc ñu ne nan marché nan marché moo tax léegi bu ngeen wootee kenn du ñëw parce que da ngeen a soof nit ñi ba pare dañ leen a far ragal sax far ils ont peur de vous parce que li ngeen indi lu bees la te lu bon la violence bi yépp ci yéen lay jóge après certains journalistes rambaaj di leen ci jàppale wax ba wax ba yey te léppi kàcc la loolu kay ab jullit mënu ko ndax yonent bi sallallahu alayhi wa am na hadis bu ñu may nettali nee na boo loo man di def ci àdduna boo bàyyee fen ba ko booy bàyyi fen di ko ba te ñoom fen daanaka mooy c'est l'art de convaincre sans avoir raison kooku nag dëgg-dëgg koy topp ak toppandoo sax wéro man gone yi laa yërëm gone yii juddu après mille am na lu leen da xaw ma lu ñu leen suy la xaw ma lu ñu naan la xaw ma lu mu doon mais am na lu leen dugg violence bii ma gis